soxna Mariama Bousso Jaaratullah mi nga xam ne mooy waajuru Cheikhul Khadim fii lañ ko denc ginnaaw bi mu génnee àddina ci atum 1833. pàkk bu sell bi ñu taxoo nag mooy poroxaan yaakaar naa ne mm, xamle ko jamono ji ñu toll jaratu ko lool ndax àddina bépp xam nañu fan mooy poroxaan ndax li ci am solo rek mooy jëmm ju tedd ji fi tëdd mooy soxna Mariama mu nga xam ne. liggéeyal yàlla moo ko fi indi mu àndoon ak kilifaam ñëw fi sëñ Mbacke Mor maam Mor Anta Sali dafa liggéeyal yàlla ba des fi euh, diggante bu gàtt la fi nekk waaye liggéeyam bu rëy ci digganteem ak borom liggéeyam bu sell bu ko yàlla nangul moo tax tey jii poroxaan di dund ba léegi tur wi jéggi na àddina bépp ku ne xam na poroxaan mbaa ñi ëpp ci àddina xam nañu poroxaan te li ko kéku li ko waral rek mooy soxna jaara mu fi tëdd tey mu dëkk boo xam ne nag diirub lim fi tëdd euh, di liggéey euh, Cheikhul Khadim mi nga xam ne mooy doomam bàyyi woon na barab bi xel bàyyi soxna si xel ku ko ku mu gis nga jóge ci gox yi dana la laaj dara ci soxna si laaj la dara ci barab bi kon yitteel yitteel na ko digle woon itam ne nañ fi daje te di fi ñaan maanaam nañ fiy ñëw te di fi ñaan suñu borom dana fiy nangu ñaan addina di dox di dox di dox ba ni fi Cheikh Mouhamadul Bachir ñëwee ci ndigalam ngir réhabiliter dëkk bi fekkoon na am na ay taalibe boppam yoo xam ne daana leen jox ndigal ci ñu di fi ñëw sëñ Maba Awa njaay muuma la kër Maba la dëkk sëñ Babacar Diabou sëñ Bay Mbuuma sëñ Moussa Paté Dramé ñoom ñëpp taarix feeñal na ne daanañ fi ñëw ci ndigalul sëriñ bi di nemmiku si soxna si ak barab bi di fi daje ay waxtu yoo xam ne dañuy def ay ñaan ba ni sëriñ Bassirou jote ndigal ci sëñ Touba mu basharatan ci ñëw réhabilité carrément Porokhane dundal ci gàttal daal taarix bu gudd la waaye buñ ko tënkee noonu danañ xam ne Porokhane soxna jaaram moo fi tëdd diggante bi yàggut waaye jëfam ju ci digganteem ak boromam moo tax dëkk bi du dund ba léegi Cheikh Mouhamadul Bachir yor kilifteefu dëkk bi. Serigne Touba moo joxoon ndigal Serigne Bassirou Mbacke ngir mu ñëw fii ci Porokhane taxaw barabu soxna si yéene Serigne basiiru nag moo doonoon taxawu dëkk bi nga xam ne moo di Porokhane ba lépp loo xam ne war na fee am ci jumtuwaay ak bërëb yu ñuy jaamoo yàlla mu amal ko fi. yéene googu nag moom la taawam ba wéyale di Serigne Moustapha Bassirou ba taxawal fi jumaa ji nga xam ne mu njëkkoon a am fii ci Poroxaan. Cheikh Mor Bachir bi mu ñëwee réhabilité Poroxaan dundalaat ko Poroxaan réhabilité wu mu am def ko muy dëkk taawam Cheikh Mouhamadul Moustapha ab taawam da ko cee wutu xam yéene sëñ Bachirou ci dundalaat dëkk bi mu daal di taxaw ba dëkk bi doonu dëkk li dëkk war a am lépp sëñ Moustapha futti ko ba mu am mu samp fi juma sampin wu yéeme ndax yi boppam yi nga xam ne ñoo nekkoon ci dëkk bi di liggéey donga yi ñoo tabax jumaa ji mën naa ne ñaq donga yi itam maanaam li donga yi liggéey su traite taxawee seen liggéey boobu lay jël di ko tàbbal ci jumaa ji boole kook donga yi ci seen bopp taxawu liggéey bi ba liggéeyu jumaa ju njëkk ji àgg jamono ji jumaa jooju di àgg mu jumaa yi sëñ Moustapha ji jumaa ju dëppook jamonoom la booba jumaa ji melukaanu jumaa ji raar na ci tund wi tund wi ñu nekk booba foofu la jamono toll waaye ni ma ko junjee léegi Cheikh Mamadou bi nga xamee ne ñëw na Poroxaan ci ndigalul sëñ Touba ba gis barabu soxna si bi mu fi fanaanee ci barab bi bi mu xëyee def na barab bi fas naa yéene mu mel ne Touba yéene jooju nag bu fekkee dafa am ay tànk di dox doxug yéene ji musta taxaw kon day dox tàmbalee ko sëñ Moustapha di dox di dox di dox ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yéene ji gën a fés fés googu moo indi jumaa ji ci sunu gannaaw tey. bi fi Cheikh Moustapha Bassirou bàyyeekoo wu ji suñu borom Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moo doon xalifa waa kër Serigne Bassirou di ko ñaanalaat mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. wéyale liggéey bi nga xam ne moom la fi magam ju tedd ja bàyyi woon taxawaat nag ngir yeesalaat jumaa ji nga xam ne moo nekk fii ci poroxaan defar ko ba mën a méngoog jamono ca la ko door ànd kook mboolem njabootug sëriñ Basiiru Mbàkke gi ak taalibe yi am yéene def ko jumaa ju mucc ayib Cheikh Mouhamadoul Mountakha cig nekkam la jumaa ji taxawe cig nekkam la jumaa ji taxawe euh, defe naa fàttaliku nañ bi muy tegaat xeer wi fii bi mu koy tegaat ngir yëkkatiku booba ci xilaafaam la mooy xilaaf ak Cheikh Mahamadul Bachir boobu nekkugul ci jal bi maanaam wutoogul sëñ Tuubaa ci jal bi booba defe naa sëñ Sidi Mokhtar sëñ Sidi Mokhtar moo fi moo fi nekk moo nekk ci ci ci xilaafa gi a ah, léegi nag euh, sëñ Muntaxa niñ ko xamee boo gisee jumaa ji mosu koo nangoo yëgle mosu koo yëgle mooy euh, liggéeyu boppam la bu mu gis ne moom moo ko war a liggéey maanaam yéene jum bëgg feeñal ci li sëñ Basiru bàyyi ci dëkk bi ak yéene ci sëñ Basiru am ci dëkk bi ci dëkk bi dund mel na Touba mu gis na kon barab yi tax Poroxaan mel na Touba barab yooyu yëpp war na ca taxaw mu daal di taxaw ci teg jumaa ji waaye nag mu defe ko defin woo xam ne defin woo am solo la mooy yëglewu ko ndax moom yàlla dafa def sëñ Muntaxa ku ko xam xam ni muy liggéey danga nga xam ne du jaawale liggéeyu sëñ Tuubaa bi ci boppam ak liggéeyu boppam loolu defe naa ne mën nañ cee gën a sori ndax baat bi mu jëfandikoo bi muy teg xeeru jumaa ji mooy jumaa ji am njeexaat la ci moom njeexaat jeexaat nag ñi dégg wolof danañ xam ne boroom tool bu bay ba ba mbayam wàcc mu dajale gerteem yóbbu ba farmanko farmango kooku kay dem ca toolam di ca jeexaat ay doomi gerte yu mën a jariñoo boroom tool bi du ci am soxla kon njeexaat la tudd li tax mu tudd njeexaat nag mooy ni mu ni mu demee woon moom mun Muntaxa ci jamono jooju ndax sëñ si Moxtaar ngi fi di sëñ Touba te liggéeyub sëriñ Touba bi mooy liggéey bu mag dëgg dëgg dëgg sëñ Mountakha gis ne moom du du du buy liggéey sëñ Touba dafay mel ne ku yanu bu yanoo it dootu mën a bokk day mën a yanu rek moo tax ci jamono jooju li ko war ci liggéeyub Masalik lépp mi ngi koy def addiya yi mu daan joxe wàññee wàññeeku wut yi ñuy liggéey ci Touba. soññee ba mu cay soññee ak addiyee jëm daan joxe taxawut te booy seetlu daf koo yàggee ndax bi mu bi mu lëggéeyee jumaay daarul minan ba mu sotti Cheikh Mamadou Lamine Baara ne bi mu koy jébbali caabi yi image yaa ngi ku ne dégg na li mu wax daf ko ne ginnaaw man bi ma koy songu jàppewuma woon ne nii lay tëdde siñ Saaliwu nekk na fi waxuma ko ci dara ginnaaw sëñ Moustapha ndax booba foogoo foogu ne fii la jëm nga nefi ñemewu ma la cee wax dara te ñàkk a ñemee wax dara gi mooy bàyyi gi bàyyi xel liggéeyu sëñ Tuubaa bi mu demee nee na ba taxaw taxawaayu jumaa nag mu xam fi mu jëm mu ne na ci sàkk pexe pexe bi mooy addiya ja mu dajale woon muy dund ak sa dunduk sëriñ Basiru ci kaw suuf mu dajale ko ci koppar ne tuddewu ko addiya njotug ndigal la ko tudde njotug ndigal njot ndax ginnaaw moom waxu ceeg sëriñ Saalihu waxu ceeg Cheikh Mahmoud lamin Bara te moom ci ndigal lay dox mu ne njotum ndigal la ko tudde jël addiye ji jox ko te loolu yomb naa jàngale sëñ Fallu ndax sëñ Muntaxa boo xoolee ci xilaafa gi addiye yi ñu koy indil ay daayira di ko indi di ko ko jox addiye yi boppam ji nga xam ne sax danga ko koy jox nga xam ne ci moom la jëm soo ko préciser lu ne ko ah te préciser préciser bi nga ko koy defal nag da ci ciy da ciy sax di ko won ne lii ci yow la jëm dalay ree rek ndax soo ko ko bàyyee ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi la koy def ndax gisatul lu moom loo xam ne yëfi boppam la mu moomal ko boppam téyel ko boppam gisatu ko dafa li mu gis mooy lépp loo xam ne lu dugg loxoom la ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi la jëm loolu sax danaa ci nettali anecdote bu xaw saf xorom muy kenn ci safóoram yi nelaw Basiru Jéey yàlla na suñ borom yokk ay leeram Euh, Basiru Jeey mas na ko ne wax dëgg yàlla Mbàkke euh, xilaaf ak sëñ Basiru ga nga doonoon xalifa sëñ Basiru moo ma dàqal gi nga doon tey <laughs> ndax li mu si jublu mooy booba moom xëy na lu mu ko laaj mën na ko koo jox ndax gis na ne li mu yor yëfuma mën na koo séddoog moom waaye bi mu demee ba nekk ci xilaaf ak gi nag dafa àgg fi mu ne ci ab ab ab boo ko ko joxee te muy addiyee sëñ Tuubaa balaa am jàmm dana xam socc boobu fan lañ ko ko tegal loolu defe naa ñi nekk ak moom min nañ lool te foog naa ne xëy na ñi ko ñi ñi ñi ñi ñi ko dànd jegewuñ ko xamuñu li xew ñoom lañuy ñoom la ñuy leeral loolu waaye ñi ko jege xam nañ ne ñu ngi dund ak moom loo xam ne kii fi nekk lépp loo ko jox mu dugg loxoom Sëñ Tuubaa la koy delloo looloo tax jumaa ji nag bi mu ko xalaatee waa këram nag am na am na am na njabootu boppam muy njabootu Cheikh Mouhamadul bi ñu gisee ne kii yëkkati na ko rek te xaaru ci kenn teel naa wax experts yi ci liggéey ne leen. awma compte sëñ tubaab mooy sama compte baat boobu nag bi ko bi ko njaboot gi déggee baat boobu yëngal na njaboot gi nag ñu gis ne ñoom ñoo war a doon ay mbaggam bu yanu dara njaboot gi nekk bitim réew taalibe yi daayira mi noonul baaxil xadim ak ñu demee noonu ñoo ñu wax dëgg yàlla taxaw ci taxawaay bu wóor a wóor a njaboot sëñ Bassirou gi mu ko seqal ak soppay boppam. taalibe yi masalan ndax sëñ Muntaxa yàlla dafa def loolu ci moom mooy ñëpp am ci moom cofeel ñëpp am ci moom bëgg bu bu yëkkatee dara bu ci bu ci bu ci wowut kenn itam ñëpp danañ danañ ko fekk si ngir melokaan wi ko yàlla ni ko yàlla bindee mooy liggéeyal sëñ Tuubaa rek la xam daraam négul daray sëñ Tuubaa lu mu yor jox na ko sëñ Tuubaa moo tax bu yëkkatee dara euh, faaw ñu fekk ko ci moo tax njeexaat mi li ñu tuddee am njeexaat mujj nag njeexaat mi. Euh, ni mu doon jeexaatee nuru lu gaaw bon ndax am njeexaat la ko tudde te effectivement noonu la demee. jumaa ji noppi ginnaaw yeesal gi mu fas ko yéene ubbi àjjuma dëppoog ñaar fukki fan ak benn ci weeru août atum 2020 sëriñ bi nag wootewu ko ndax jamono moo ko laajul ndax mbas mi nekk ci réew mi nga xam ni sëriñ bi am na ci taxawaay bu kawee lool. maam damay wax ne sëñ Mountakha aspect yëpp foo ko ci xool rek gis ko mu fees ko dell su fekkee. Euh, nitug diine la boo xoolee ci wàllug diine gi danga nga koy gis mu fees dell bu dee ab citoyen la citoyenneté bi da koy gis ci moom ba mu fees dell bu fekkee ak nite la ak xam àddina danga nga koy gis ci moom mu mat sëkk loolu moo tax bi mbas mi amee te mu xam li am ndax xam na li am te moo ko waal boppam discours korite ga la yaakaar naa su ma juumut dégg nga mu ne corona lu ko waay wax tooñ ndaw la lu ñu yebal loolu la wax bu mission jeexee jeex na xam nga foofu moom maandu na ci corona ki mu doon ak li ko tax a jóg sëñ Muntaxa maandu na ci waaye ci nite rek ci nite rek bi mu xamee ne réalité la réew mi moom ñëpp a ko séq te yëg-yëg bi mu am mooy ku wopp mooy ki la war a faj donte mënta egsi ba ci sa biir kër nguur gi fi nekk itam moom yëg-yëg bi mu am moom mooy ki war a dimbali waa nguur waaye waa nguur waruñu ko dimbali moom yëg-yëg boobu la am dafa daal di génne alal teg ko sëñ Fallou yow mi ànd ak sëñ bi waxtu ne xam nga ne sëñ bi acte bu mu posé rek am na lu tax ndax du defantu du jël alal di ko teg fu mu ko wërta teg du ko sànni ndax xam na li muy joxe lu mu doon kon xam ne ni lii nekk na ah bi mu defee loolu ba noppi li ci teg mooy ñi nga xam ne ñoom la seqal àddina mu nangul leen yi ñu wax simplicité boobu warees na koo jànge ci moom muy simplicité bu cent boo xam ne ku ne war nga koo jàng mooy wàcc na ba fekk sénégalais lambda bi mi mi bi bi bi ñu takkloo mask sëñ Mountakha fekk si na ko du takk di takk masque bu baax dégg nga li yaa ngi dégg li ma wax gel bi ñuy laal fekk si na leen di ko laal kon nangu na ne am na mu ci dox doxiin wu rafet wu ñu yëg ak wu ak wu ñu yëgut mooy xam naa ne fi mu ci nekk ci ci ci fi ci nekk ci di ñaan jortu naa ne nekkandoowu faak ñu bari ci di ñaan lii jóge fi li wér mooy boobu ba léegi ku ko xam ak ku ko xamut noppaluwul ñaan yi muy ñaanlu mm, ñu di ko def ci collectif ñëpp di ko def muy ndigal li mu joxe bokkut ak ñaani boppam yi muy defal boppam su weetee ngir lii jóg fi ndax euh, mm, mooy ki nga xam ne bokk na ci li ne ci moom mooy réew mi ñu fi bokkal di ko di ko dund ak bitim réew ak ña àddina sax laay wax bu sañoon dara du dal ci seen kaw. waaye bi mu gisee ne lu yàlla def la muy jullit bu nangu dogal dafa nangu dogalub sunu borom bàyyee yàlla akub dogalam du ko ca fekk mukk ci àddina waaye nag li ko yàlla digal ci dogal bi sañ na ko muy ñaan su fekkee dogal bi day dogal bu metti ñaan rek la ca mën a def muy ñaan waaye xam na dogal bi am na te dogal bi suñu borom képp mooy ki ko dogal moom dong mooy ki ci man dara itam lii ñuy def lépp ay pexe la ca man gi dara man gi ci yàlla man dara fes na ndax bu fekkente ne bii réew yi ci biti la te bari lool doole amatuñ pexe seen pexe jeex na kii fi dugg ba indi fitna jooju ci àddina bépp bi mu egsee ci noonu mi ngi dox doxin wu yeex li ñu war a jànge foofu mooy li tax mu egsi ci noonu di dox doxin wu yeex ba faagaagalut te fam fam jaar fépp da leen a faagaagal war nañ cee amum njàng mooy nun ndekete yàlla bàyyi nanu xel li fekk teggiwuñ suñ tànk te fi ñu ko teg suñ digganteeg suñ borom gën koo doyloo gën koo wóolu lépp lu dikk suñ borom mi nga xam ne moo noot lépp mën naa dox suñ digganteeg loola. Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir di kilifa gu fonk lool diine lislaam te jëfe ko maandu te bëgg lool Cheikhul Khadim. moo tax sëñ Mountakha bëgg gi bëgg gi diine loolu moom neexut a nat damay wax ne jëm jëmm ji bu la boo même boo ko xamut nga xam ne danga koy dégg mu romb la di dox rek. nga nga nga am benn yëg-yëg ci diine bu mu tuuti tuuti lu mu tuuti tuuti bu la rombee di dem boo ko xoolee xam ni kii jox na yàlla léppam ndax dafay refléter ci xar kanam bi nga di ko gis pas pasam bi digganteem ak sëñ Tuubaa loolu jàmm ndott na ci man koo nat sëñ Tuubaa mi ko seqal rek moo mën a xam sëñ Muntaxa mii fi mu toll ci moom loolu moom ni koo gis muy dox ak ku mën a doon njort rek la ci am waaye mënut a fexe fexe fexe ba mën a natt dégg dégg pas-pasam ci digganteem ak sëñ bi dafa jox yàlla léppam ba mu jeex jox sëñ Tuubaa léppam moo tax sax damay wax ne ñaare moom discours yi muy jàllale di naqaree dégg ndax fi mu toll ci xaala bi mu toll ci lay ci lay ci lay waxee li muy wax léegi nag su fekkente ne bi yow amuloo dawq boobu mu mosoo mosewoo fi mu fi mu mose wala xet gi sax xeeñ la li muy wax boo deful ndànk boo boo ca bëggee nekk di ko lañ bat dana la indil fitna ndax dafa am fu mu nekk te li muy wax lépp da ko koo xam xam maanaa da koo mos xam ko xamin wu rafet woo xam ne yow mi koy déglu xamu ko ginnaaw xamu ko nag faaw mu di la jaaxal ngay laaj sa xel kii li mu wax lu mu doon nangam li ci gën mooy bàyyi ko fi mu nekk ndax fa mu nekk fekk ko fa dafay jafe. Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir jàmm yàlla rek moo ko ñor ak jëf ju baax. boole xilaaf ak sëriñ Basiir Mbàkke ak gog yoonu murit gépp lenn lu ci ne nag xam na nam ci doxee ndax ku la